alors li ñu ci xaw a jaaxal nag mooy ay taalibe euh, bi ñu ko defee ñun jël nañu suñ matukaay dem ci euh, daara ja taalibe fa nekk yëg nekk au nombre de 60 ak ñi nga xam ne aussi dañoo dëkk ñëpp autour ci daara bi ñoo xam ne ni ñuy defal jëleen defal def leen teg daara ji daara ji soruñ daara ji ñun tam jël nañ leen yóbbu leen ci benn hôtel boo xam ne ñu ngi leen di suivre waaye xam ne xam ngeen ne taalibe yi dafay ñoo xam ne dañoo neew doole te ñun ñu war leen surveiller loolu la ñuy def donc ñu ciy ñaan lépp loo xam ne nit ñi mën nañ ko def ci taalibe yi ñu jëm leen dimbale parce que situation ñu nekk ñoom dañuy sonn parce que man def naa tey avant may def ak yéen point de presse bii ñetti daara mais dañuy nekk ci situation bu bu xaw a doy waar donc euh, euh, bu ma doon jël daara yi bu ma doon jël Tiwaawan nga xam ne xalif bi foofu daf leen confiné confiné di leen toppatoo ci yëpp lu mu soxla mu jox leen exemple boobu la ñu war a joxe. fee nag ñu ngi ñaan mairie bi wax naa ci waxtaan taan waxtaan naa ci dem ak maire bi monsieur pour ñu seet ak ñun leen di dimbalee yaa xëy loolu ba mënoon am nag ba nga xam ne du bu dimbale ba mënoon am danañ seet lu ñu leen def le temps que maladie bi jeex ñu delloo leen ci seen njaboot yi. parce que situation yi ñu nekk mënul continuer c'est impossible man dem naa foofu mais ci li conditions yi nekk loolu mënul continuer déjà ñële génne leen yóbbu leen mais yeneen daara aussi danañ leen wër il faut que ñu soit autorité locale yi maire yi wala autorité nekk kii jëm ñu dimbali ñu mën a euh, yëkkati niveau de vie soit aussi ñu seet du ñuy def ba delloo leen peut-être sen sen seen parents parce que xamna gën ñom ñoom ñëpp sëruñ Thiès ba nga xam ne bi bu li ñu nek bu jéxé ñu indi wat leen mais situation bi ci taalibe yi xaw na doy war mais nag euh, liñ mën a wax mooy quand ñi nga xam ne ñoo fi nekk danañ leen débale gën a leen toppatoo ba nga xam ne feebar bi du daanu moom benn jaaykat la ñoo xam ne dañ jékki rek ñett lañu jiw jiw jiw tiyaawoon ñëw tiyaawoon jaar nag foo xam ne waruñu fa jaar parce que jaaruñ ci tëli xam naa dañ jaar yoonu suuf yi ba egg mais biñ ñëwee préfet bu euh, tiyaawoon xam ne ñii seen booliwu euh, leen mu ne leen mu confiner leen naa mu denc leen benn bërëb bi mu leen dencee benn bërëb suñu équipe yi dem foofu prélever leen ñett lañu woon kenn ku ñëw positif donc euh, bi ñu ko defee bi ci guddi ñu jël leen ñoom ñëpp ña fa ñetti commerçant ak fa ñu dekkoon yëpp fi ñu dëkkoon ñu yóbbu leen ci benn hôtel denc leen foofu muy quatorze personnes fukki nit ak ñeent ñoo xam ne tey ñu ngi leen confiné di leen surveiller donc ci benn zone boo xam ne maladie mu nga foofu donc loolu foofu laa ci mën a am ci kii bi mais foofu la nekk donc li ñu bëgg wax ñoom nañu toog képp koo xam ne parce que état d'urgence mooy ku nekk fa nga nekk bu fa jógee bu nekkee da ngay jaay kat toogal foofu nga jaay c'est pas la peine ngay jéem a naxante ak policier ak gendarme bi pour jéem a dugg parce que mu si rek ngay indi parce que Tivaouane mën na toog sans am dara bu nekk ñoo jamuñ fenn ñun ñoo koy gàddu ñu indi ko et loolu c'est il faut que nous arrêtions. donc gouverneur dana gën a jël décision décisions pour que tous ces clandestins là de jaar de par des routes détournées ñu nous leen et puis dans Vous nous ñu leen également parce que c'est pas normal donc euh, loolu aussi vraiment il faut que sensibilisions sensibiliser population yi nit nous nañu toog fu ñu fi fiñ dañ toog seen kër nañu toog seen dëkk yi bu kenn demati fenn ñun Thiès toogoon nañ ma xeexoon nañ ba amatul won ben cas mais effectivement loolu moko indi maladie bi du jékki rek virus bi du jek rek di dox di dox ba ñëw ties nit moko fi indi Thank you.